ñoo xam ne dañu armé wu armé wu la ñu def ba feek dell mel ni kuy jiital benn terroriste monote ko yóbbu ko ba këram wàcce ko ak monote bi si kanamu njabootam waa koñ bi yëpp génn ñu dugal ko këram commencé di jaxase bagage yi di yëkkati ay lalam donc di dajji armoire di xool ba xam est-ce que gars yi sax amuñ ay ay bomb yu ñu miine fii parce que comme ñoom le fait que tuddee nañ leen force spéciale rek est nañ fa dara jour boobu non jële wuñ fa dara parce ni ñu ko fa indee noonu lañ ko delloowaat mais après koñ bi la daf doon jooy loolu noonu ba nee na buy woo sax soxnaam téléphone doom bi day dafa jàpp ne moom papaam ni ñu ko gis ni Euh, police yi ànd ak moom armé wu tiimale ko fital moom dafa jàpp ne papaam ba léegi rëbës gi nekk sax loolu la fay dund tellement loolu benn benn genre traumatisé intimidé leen seen kanamu njaboot je pense maa ngi ñëwaat euh. léegi ci yow Abdou dafa am loo ci bëgg a yokk ulay man plateau bi franchement dama cee gisul sama bopp mhm. man lu ma xam nga man lu ma bëgg a waxal ma koy wax mhm. kii jël na parole pare kii jël kii jëlaat man ma toog mel ne ma fii kenn am fi dossier ñu ngi ay sa dossier moo la ko indi. maa a xam ndax tëjal sa gémmiñ li ngay wax li eh, eh, na wax xoola xoola non day ma pare loolu kay bul insister day noppi ba ma pare Abdou Nguer bi wax yëpp maa ngi Abdou Nguer waaw déglu ma déglu ma Abdou Abdou waxuma Abdou Nguer may ma man ma wax plateau man maa koy gérer du yow yaa koy gérer déglu ma dama koy wax waxuma ak yow ma Abdou Abdou Nguer fii wax ju correct lañ fi wax boo koy waxee nee ko noppil déglu ma rek ba pare voilà waaye tëjal sa gémmiñ wax jooju bëgg moom fi du wax déglu ma man maa koy wax mu noppil kon nee ko mu noppi ma ne man maay wax kan mooy noppee kan mooy wax du yow yaay gérer plateau bi maa koy gérer xam nga a invité di wut parole bu léegi déglu ma Abdou dama la ne balaa ngaa toog dama laa wax lu leer ne la mm. fii du Facebook du live fii du wax du correct da nga fi wax nit ñi ñu wax ñëpp ngi wax Abdou Nguer ñii li ñu wax dara correct wu man maay gérer plateau bi kon na ngay wax daman yow laay déglu kay dama ne mhm. fii bu ñu fi ñëwee ñun ñëpp ñoo yam dossier kii maa ko ëpp xam-xam ci li muy wax fopp te li muy wax dara taxawu ci fii mooy Walfadjri kii du journaliste wax leen ko dëgg kii mën na nëbb ay source am ndax journaliste la mën nga nëbb say source la mais kii li mu wax buñ ko ci woowee suba dañ koy tëj parce li mu wax amu ci firnde nit nag doo ko bàyyi muy wax nga jox ko micro muy wax di wax loo xam ne ëllëg mën na am problème man li may li may sañ wax yépp du ma wax lu may indil problème gis nga fekkuñu kenn sa boutique ngay jaayi pétard ñu tëj la kon ñu tëj biisu ngoone ndax day jëli pétard dem décorer arène national mu rafet jàppuñu fi kenn ngir ay pétard gis nga Sénégal buñ ko bëggee defar nañuy waxante dëgg jaayi pétard buñ ci jàpp kenn képp koo xam ne si jàpp nañ la ci force spéciale laale nga ci wala takk nga ci ba ci amee ja xaalis bi ñu doon transféré fu mu jaar ci loxoom enquêteurs yi dofuñu police bii dofuñu dañoo jàng ba xam seeni droit xam-xamee ay inspecteur fa nekk bu ñu enquêté nit ba teg ko loxo am na lu mu ca laale am na ñu fi nekk ana Bassirou Diomaye ndax jàpp nañ ko El Malick jàppuñu ko te ñoo gën a jege Pastef ne ci biir am na ponkali Pastef kenn du leen jàpp parce que am nañu xel léegi nag ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw kii dafa wax lu am solo sànq euh, kii konaa nee na bàyyi leen ñi leen di jox ndigal ngeen di dem ci ndigal loo xam ne di leen di dugal ñaata jeune a ci prison bi ndax Ousmane Sonko ndax ñaata jeune ñoo fa dugg ndax ndigal. man bëgguma wax loolu de waaw bul ma wax loolu ma waxul. waxal say wax continue ah, man bëgguma wax loolu. boo ah, ma wax loolu sa loolu waxal say wax rek. léegi mën ngaa continuer. pare na ñaata jeune a ne ci biir prison bi ndax ndigal. ñii force spéciale ndigal leen fa yóbbu nañu bàyyi caaxaan yi réew mi bu ñu ko bëggee defar nañuy wax dëgg te suñu borom tax fekkuñu kenn sa kër ngay nelaw ñu ne la pëkk pëkk force spéciale jugal fekkuñu kenn ngay jaay pétard wala ay balu football ñu ne la jugal maa déglu Ngor so sant Diouf duggoon ci live Pape Alé Niang bi moom mi ne nettali scénario bi ni ko doon defee cocktail Molotov yi fañ ko doon defee nañ leen jàppe bu dee lam wax dëgg la ñii waruñoo génn ah moo Ngor si Diouf wax ñëpp di dégg ci live Pape Alé na mu waxee na lañ koy defaree. nga bàyyi ko bàyyi ko la xam nga luy cocktail molotov mooy jël essence dugal ci butéelu veer def ci ay cox ak yooyu noonu jaxase. loolu lu muy def man mii mën naa ko defar. loolu lu muy def cocktail mën a. boo ko sànnee bu daalee rek day tas. boo taalee morceau bi bu taalee rek day. gilets jaunes dañ koy def man man waxuma ak yow. gilets jaunes dañ koy def parce que li ngay wax maîtriser woo ko. ba pare nga wax ma. Ah, ñu dem boo ko daggee rek émission bi day yéex continue. non mais mais li ko wax nga tamit teguwul fenn. waaw man sama xol du dagg de. voilà man sama xol dagg non non. bàyyi ko mu continue ngay wax loo maîtriser. ma ma réguler rek Ousmane bàyyi ko mu wax ba pare continue continue Abdou Ngor si Diouf mu ne bi ñu rombee cap de bis central bi waa ju ne ko fii lañ bëgg a taal Ngor si man li wax maa ngi ko jàppale audio beeg yëpp mu ne fii lañ bëgg a taal mu ne ko ngeen taal fii pour lan Diouf mooy nettali de pa taal fii pour lan mu ne ko noo xam nga bu ñu nerve yi attaqué wax seen wax yi njalaw njalaw yooyu ñii bu dee nii Ngor si Diouf wax ni la demee waruñoo génn bu ñu gëmloo Sénégalais naan ay pétard lañ fi jàppuñu fi kenn pétard ñu fi kenn da nga doon yónnee wéef dépense wala dara da doon yónnee ay booy pour ñu def naka suñul noonu ñu traqué ba topp leen jàpp leen Akhenaton ba ca bitim réew mu ca gun na ndax ma nga bitim réew toog képp ku bokk ci force spéciale bay ba nga defar say bagage xam ne mënoo rëcc alkaati yi. damay damay damay alkaati yi moom ku ci bokk nañ la jàpp. maanaam ban source nga dama ne li ma wax ku ci bokk dinañ la jàpp. pour ñu tëj rubrique prison bàyyi ko yeggali damay delloo njukkal nag force de l'ordre yi euh, di di nuyu waa brigade de recherche bu Touba ak section de recherche bu Dakar ñi ngi def liggéey bu am solo police yi liggéey bii ñuy def mooy ñi nar a yàq réew mi jug di mbubboo naan patriote di mbubboo ne dañuy yàq réew mi ñooñu am na ñoo xam ne dañ naan ànduma ak Sonko te lu waat Ousmane Sonko rek la ñuy topp mitin yi live nee na nitu dëgg la ki sàmm jikko yi te ñëpp ci Ousmane Sonko la ñuy dem. sàmm foo tudd Ousmane Sonko mu dal sa kaw te nee nañ bokkuñu Sonko man nag damay assumer mu leer usmaan Sonko maa ngi moom ci aadama ba ci awa mënuñoo déggoo parce que fi mu jëm jëw ma fa gëw ma ko te lii mooy nekk ay naxaate la ko ci jàpp tamit yaay nax sa bopp euh, waaw donc man moom damaa rus quoi parce que vraiment yenn argument yi mun na ñàkk quoi. Mm. te aussi bu ñu la invité ci plateau donc kii animé débat bi donc moom mooy. xa xool taay bi façon bi muy doxalee mais malheureusement xëy na il a tellement souffert parce que ñun tamit suñuy mm. dëgg dafa xaw a wow kooku nag. Mm-hmm. mais donc du coup noonu la mais moom li muy wax argumenté wul ci xam-xam te ñun yàlla moo tax ñuy wax chaque jour dama koy wax et je répète ñun. Euh, ànd ak Ousmane Sonko du crime ci àdduna bi du crime ci Sénégal mais daal force spéciale yi ma leen di wax rek mooy mooy ñi ñëw fekk lépp lu askan wi yëpp bokk kenn nit ne ko dëndix lekk te du mujj fenn je pense que bu dee am na ñu gën a ñoo ñooñu ñoo gën a dangereux ba ñun APEX bee ñu dëkk ñu ngi dund injustice yu metti ñu nekk ay déplacé ba tey ma leex ñooñu ñooy force spéciale yi état déplacé ñu toj suñuy kër yoo xam ne dañ fa dund ay 30 ans ñoo xam ne am nañ 50 ans ci gox yooyu lañ juddoo. ñu nekk ay patriotes maane ba état soxlaa autoroute à péage Pikine irrégulier sud et cetera dañoo nangoo jug ngir les les travaux de l' état mais pendant dix ans ñu ngi daw ci suñuy titre de propriété di daw ci suñuy këyitu kër waaye loolu doyul moom ay espace yu ñu fa bàyyeel ay espace réservé pour des écoles pour pour pour pour épanouissement pour cadre de vie am ay ñoo ñu ñooy ay force spéciale nëbbatuwuñ ñëw danañuy salfaañe nekkuñu ñu askan woowu indi ay bail ci kër foo xamante ni ni usage à haute densité mixte la c'est pas une usage usage à habitation askan wi di wax ñu di leen porter plainte depuis dix ans ñu ñuy traqué mënuñoo jot ci suñuy këyitu kër ñun des pap nga xam ne ñun on est des personne affecté par le projet ay nit jóge fa la indi ay boo ci terrain yoo xamante ne nii cadre de vie wu askan wi la ak école yi ak euh, jàkka yi suñu manqué ñu dolli ko fa ñu ñëw indi fa ay ba ci talweg yi fi ndoxu taa yi war a jaar ñu dagg ko génnee beneen plan bu bokkul ak plan directeur bi nga xam ne moo fa am muy plan bi nga xam ne dafa ne titre foncier 60 43 R nekk 2039 logements léegi dem na ba deux mille quatre cent et te loolu mooy force spéciale ba tey jii dañ ñoo dañ ñuy traqué dañuy indil ñooñu noonu. maanaam ñi ñëw fekk alalu askan wi fekk lu askan wi moom fekk ñu def benn benn euh, plan directeur bu légal bu normal norme ko nga xamante ni tey ñëpp xam nañ fu nekk lu mu war a nekk ñooñu ñëw indi falsifier beneen plan indi ko doyul ñu salfaañe dund askan wi doyul waaye dañuy ñëw di ñu jox ay convocation du ñu traîner ci tribunal bi ba le 4 mai toll ni la wa citoyen APEX yi tey war a wuy ji ji délinquant yooyu noonu tey nga xam ne dañoo ñëw ci cadre de vie APEX ne dañ koy salfaañe ñu ñëw di ñu di ñu ñun ñun honnête citoyen yi ñun waa APEX ñu ñëw di ñu traqué te loolu noonu ñu leen di wax suñ ko suñ ko bàyyee loolu ñu leen di wax suñ ko bàyyee xam nga lan lay jur. day jur tey assainissement bi ñu def parce que dañu suul quarante et quelques ci suuf APEX dañu suul quarante et quelques milliards ci suuf ndax réseau yëpp dañ ko connecté. tey bu nee deux mille trente lañ fa prévoir ñoom ñu def fa deux mille quatre cent dafay dafay dafay entraîner li nga xam ne moom mooy réseau bi te bu yàggee dina dem ba ndox yi day dellusiwaat ci biir ci biir kër yi day dem ba milliards yi ñu suuloon ci suuf soosu dootul amati njariñ kon kii bu amee lu muy wax nañu wax. askan wi ñuy jàpp di leen jaay doole di leen néewal doole di leen tëj ci kaso bi te teguwul fenn benn bi nag man nag lu dul dëgg du ma ko wax ma du sekk dafa juum dafa def erreur te li mu def légaliste du ko def warul warul jéem a évader prison quel que soit nag tort yuñ teg si kawam Thomas Sankara il a vécu vingt sept ans de prison pourtant évadé wul ñaata nit ñoo fi nekk ci kaso bi ñaata atu yàlla te dañ leen tooñ mais nit ki bu dee da ngay doxal yoon di dëgg xëccu yoon waroo fajal waroo fajee sa émotion loo xam ne dafa la indi tey jii évado évasion boobu mu def dafa gën a dafa gën a chargé ñi ñu jàppandaloon ci force spéciale yi dafa gën a may aussi les oppresseurs ñu gën a gën a chargé booy yi ba loolu tax na sax ñooñu li leen gën a diireloo ci prison bi évado Pape Mamadou Seck boobu ci la bokk. Hmm. kon même booy damay lancer appel booy yi ñu tee ci kaso bi yépp nañ ànd ak seen ngor 2024 yàggatul. ñi nekk ci nguur gi dama leen di lancer appel ku dul fàtte après lu la neex defal. dëgg la waaw ah, ñu fàttali ko rek ne lii nga xamante ne moom lañ indi tey ci ma euh, Madické euh, Diop du suñuy kàddu ñi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéeyal la ak naka la demee ñoom dem nañ si enquête bi bëgg nañ sax ñu woo leen pour ñoom ñu mën a firndeel li ñuy wax mais comme enquête dafa nekk ci yoon ñu bàyyi xel ne du ay nit yu ñu condamné waa force spéciale c'est pas des forces spéciales parce que enquête bi ba léegi pënd gi wëreegul au fait nekk ci ay enquête bés bu ba nga xam ne woo nañ leen ba taxaw kaw mun na am ñoom ñëpp ñu libéré leen bés bu ñu leen condamné nag ñuy doog di wax ne euh, li ci luñ nekk du dëgg du yoon juste rek pour indi Abdou Nguer un tout petit peu des présumés ce sont euh, c'est pas voilà euh, des meurtriers ou autre parce que dossier bi mu ngi toujours en instruction dañuy continuer rek rubrique prison balaa ma koy pour mu gaaw ndax ñëw ci tuuti ci dossier li nga xam ne moo fi indi Abdou Nguer Abdou Nguer yow nag dañu dégg ci réseaux sociaux yi nga ne da nga porter plainte ki nga xam ne moom mooy Sidi Ahmed Ndaw fan nga ko porter